Covid-19 au Sénégal. Ce mardi 26 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1515 tests réalisés, 133 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,78 Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Kaolack, 7 à Touba, 4 à 3 à Koki Diamniadio Diourbel Guédiawaye Kédougou Louga et Podor 2 aux Almadies Dakar Plateau Keur Massar Liberté Mariste Mermoz et Thilogne 1 à Cité Aliou Sow Fass Foundiougne Guinguinéo HLM Grand Yoff HLM Linguère Mamel Matam Mbour Médina Ndofane Ngaparou Ngor Virage Nioro Nord Foire Patte d'Oie Richard Toll Rufisque Sakal Sicap Baobab Yara Yoff et Ziguinchor patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 25 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 127 cas ont été déclarés dont 20 870 guéris, 592 décédés et 3 664 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, notamment le port de masque correct, couvrant le nez et la bouche le lavage régulier et fréquent des mains avec l'eau et du savon ou utilisation de gel hydroalcoolique, la distanciation physique. Mais également, nous rappelons euh, éviter d'éviter effectivement les rassemblements, de diminuer les déplacements, mais surtout de protéger nos parents. Merci de votre aimable attention. ma jottali leen xibaar bu bàyyeekoo ci ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan laata loolu maa ngi nuyu mbokk senegal yépp biir réew mi ak biti réew tey ci bésu talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom juróomi téeméer ak fukk ak juróomi test yi ñu def téeméer ak fanweer ak ñett ñoo ci positif maanaam fanweer ak juróom benn cas contact mooy ñi jaxasoon ak ñi ameewoon doomi jàngoro bi amul benn kaa importé juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar cas issus la transmission communautaire maanaam ñi jot feebar bi te xamuñu fi ñu ko jële ci ñooñu ñaar fukk ak juróom benn lañu nemmee ko ca Kaolack juróom ñaar ca Touba ñeent ca Wakam ñett ca Koki Diamniadio jurbel Guédiawaye Kédougou Louga ak Podor ñaar ca Almadi Dakar Plateau Kër Massar Liberté Mariste Mermoz ak Ciloñ benn ci Bel Air cité Aliou Sow Fass Foundiougne Guinguinéo HLM Grand Yoff Hann Linguère Mamel Matam Mbour Médina Ndofane Ngaparou Ngor Virage Nioro Nord Foire Richard Toll Rufisque Sakal sikat Baobab Yarax yoof ak Ziguinchor téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ñooñu ñu ci ñu ñu woon wér nañu bésu tey ñeent fukk ak juróom-ñett malade ñoo ngi réanimation fukki malaat ñàkk nañu seen bakkan wësu dëmb altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi ci des hôpital ñoo ngi tane ñiy sàkku ba léegi ci askan gi ñi sàmmoo ak digle waa kër docteur rawatina takku masque saa su ne raxasu ak ndox ak saabu wala ñuy utiliser gel hydroalcoolique boole ci dandante lu tollu mètre suñ diggante ñuy ñaan aussi ñi mën a dimbali protéger suñu kilifa yi ci kër yi ñoo ñu génn ñu demuñu ñun ñuy dem ñi tàkk suñu mas di raxasu wasalaam ñoo ngi leen di gërëm